fii canal ouvert la comme ni ngeen gisee travoy yi euh, sunu benn dëkkandoo bu ñuy wax Pam Ndiaye Soare moo dëkk en face s'est trouvé que ne dafa def dal ci canal bi daf ko benn parking privé te jàpp nañ ne bu dëkkandoo yëpp defee nii bon leneen mooy am loolu lañu ñu en tant que mouvement citoyen euh, environnement bi nangu ko te it na yem si dëkkam na yem si këram. ndax bu ko nekk defee nii rek du sotti loolu la ñuy dénoncé parce que canal bi mu tëj def ko parking privé loolu moom moo ñu lu ñu naqari on a alerté l' autorité muy le maire mais jusqu'à présent amuñu réponse am comme amuñu réponse am nag ñun dinañu ko kalaame fi nga xamante ne fa la mbaax na doone benn ndax kanal bi c' kanal un canal ñu kenn mu koy jël di ko privatiser pour son parking privé loolu moo ñu fi andi ñu koy naxarlu fu naxarlu yem waaw parce que léegi Sénégal dañuy jaay ñu ñu tur si c'est un ngorwaay d'origine bu ko fi defee amaana ngorwaay sax ñoo ñëw na ko dindil waaw ce qui s'est passé c'est c'est tellement honteux de la part de nos autorités et de ses complices y a que dans ce village ki ñoo xamante ne ñooy ànd ak genre nit ñi di di jéem a lëre nit ñi loolu mooy li fi am surgatu daal si surgatu lañ na a dee daal waaw pour daganal la mel nii mais